li ma wax sànq rek ñoom suñu ay mag lañu suñu ay nijaay lañu tette nañu ñu te tey màgg nañu et loolu moom mi xam na ko parce que je suis certain c'est quelqu'un qui fait confiance à la jeunesse et jeunesse boobu tey jii ñoo bëgg ñoom ñu wan ñu yoon ngir li ñu ñu jàngal ci lu baax ñun ñu mën koo jëfe